تاب علي توبة قد قسلت رب قلوبي بالنبي من خجلت شكرت على النبي محدثا مصادني ما قالني فادسا زادني الباقي بداي راقي ما قادني لشكر بالأوراق daaniya ni amul shukur mbokk yi yéen ñi sako seetaan Sénégo Sénégo TV tey nag ñu ngi entretien exclusif ak monsieur Cheikh Thiam di euh, njiitu mouvement Ma Réew monsieur Thiam maa ngi lay maa ngi lay fay Seydina sama xarit sama doomu ndey di fas yéene taataan say kaddu di la baalu àq ci weeru koor bi xam naa avancé nañ ci ay fan yu néew di bàyyi aussi ñu dugg euh, euh, waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli ci yonant bi di sant samay ñaari waajur di sant sëñ Tuubaa ak di ñaanal xalif général de Mouride mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal nitu diine yi nekk suñu réew yëpp euh, ren li xew ci ñaari weeru koor yi mooy booloo dafa jot ci àdduna bi yëpp loolu la yàlla junj askan bi. ñu war ko comprendre war ko ci décortiquer pour une grande première jullit yi ak catholique yi bokkandoo woorandoo fan yi ñuy ndoo du am différence bu bari kon loolu daal lañ ci war a jàngati jàngat bu njëkk bi loolu la ci seetlu. comme ni nga ko waxee noonu ci diine mu luñ ko bokkee ñu gis ne Cheikh temps yaa ngi def ay vidéo di def ay chroniques yu am solo ci internet bi peut-être am na ñu koy jàppee lu positif am ñoo xam ne naan dafa négatif. ñu xëy suba gis benn point de presse ay jeunes toog wax ne Cheikh Thiam moo ngi présenté wu mu ngi yeesal ak euh, ak jéggaloom ci communauté mouride bi Cheikh Thiam mi waraloon coow li defu ko ñeneen di ko defal est-ce que mën nga ñu leeral bi moomu na la demee. waaw Seydina euh, laaj bi am na solo xam naa sénégalais yu bari ñu ngi yàkkamti ma yey yàbbi ci am na ñoo xam ne sax ñu ngi wax ni man ànduma ci loolu sama xarit yi def man ni leen déedéet euh, sama xarit yi li ñu def lu ma surprendre la. lu ma jëlee kaw la parce que ñoom togg nañu ko ba ci veille bi la ma taala jaxate woo yëgal ma ko ni ma boo bëggee dañ koy def boo bëggul dañ koy def ndax am na loo xam ni yaa ko moom mais am na loo xam ni ñun ñoo ko moom te quoi qu'il arrive ci dëkk bi nga juddoo yaroo fi màgg fi ñi def conférence de presse boobu man ak ñoom ñoo bokk ay daara xam nga nag man gone géwal laa te jaar naa ci daara yu bari daara ju ma jaar damay jël xale yi di leen football loog yu bon ñu dàq ma moo waral képp ku juddoo tubaay yaroo fa màgge fa am 40 ans rek te jaar ci daara yi xam nga Cheikh Thiam donc ñoom bi ñu jëlee décision def ko pour réconcilier ma ak sama ville nataal parce que nit ku nekk ci àdduna bi mënoo am lu weesu lu gën a kawe sa bokk say bokk te yàlla dafa dogal man samay bokk 98 pour cent samay bokk biir Touba la ñu nekk et may sant Talla Jaxate di sant sama xarit yooyu noonu ndax euh, balaa may ñëw sax ci li ma jubook sama sama tarixa ma teg ma am fu ma ko teg nag damay ñëw ci li ma li ma jubaleeg samay bokk parce que ci sama biir biiri bokk euh, dama doon wax loo xam dafa bees ci ñoom bees ci seen bopp moo tax ñu bàyyi dañ ma ñu bari dañ ma cee daggoon bàyyi ñu bari dañ ma cee mere woon am na ci ñoo xam ne waxuma ak ñoom depuis ñetti at mais bi conférence de presse boobu jàllee la ñu ma woo ñu commencé retrouver waat mu mel ni beneen air bu may dugaat en dehors le retrouvaille nag bi am ci sama diggante ak sama confrère nga xam ne dafa am objectif bu ko waral donc loolu moo waral loolu may sant Talla Diakhaté di xamal ni bokk na ci may may moom it ci may sëriñ bi bokk na ci ndaw yi dëkk bi ñi nga xam ni xelam sell na kàllaamam set na macha allah te bettuma ci moom ndax ci formation wu Serigne Salihu Mbacke la jaar euh, jóge xel koom donc taxawaay boobu la ci may rafetlu di rafetlu loolu di sant sama xarit yëpp di leen wax ni man maa jéggalu njéggal loolu ci man la jóge et man maa joxe ok bi te su ma ñëwoon ñoom dañoo toog di ko def man damay bërëngu di ko def. ñoom dañ ko togg ba pare ni ma dañ moom daf ko togg ba pare woo ma yëgal ma ko ni ma ñun dañoo fas yéene def conférence de presse suba jàpp nañu kër diw ak diw samay xarit yu ci jàpp lafa am ci ay teranga ñoom ñoo ko def bi biñ ma ko waxee man leen d'accord naa ci ndax bu ma ñëwoon tamit dama koy def dafa am fu ma ko teg. jégalu bi kon da wala nan la demee. déedéet musuma wàcc sama ànd musuma ci génn ba ciy dellu si waat damaa nekkoon benn sénégalais bu frustré gisuma sama bopp ci sama réew. Euh, wër àdduna jàngale àdduna di togg muy ñor ma koy jàpp ci sama xel di ko jàllale ci sama kàddu muy génn di dugg ci xolu askan bi ma bari ñu ma ko bokkal ñoo xam ne gisuñu seen bopp ci réew mi ñu nekk muy Sénégal te mënumaa dëkk Touba di tudd Koupentoum wala may tudd Bandiagara wala Gossas tuubaa laa doon dëkk Touba laa mën a tudd donc te damaa bokk ci loo xam ne sinti nii muy tarixa dib dëkk bokk ci tarixe yi ëpp doole ci réew mi ci wàllu nu ñuy gisee ci wàllu nu ñuy doxee ci wàllu nu ñuy ngëme moo tax lépp loo wax lu safaanoo ñoom ni ñu ko bëggee rek day daal di jur ay frustration dañuy mer mais lama doon wax amul lu ci nit mën a teggi ci àdduna donc loolu yëpp nag ci jagleel sëriñ bi la bokk man loolu laa gëm donc looloo tax bi ma demee ba xam ne lii may wax nii lépp pour fexe ba fi ma jaar ci dundu gu bon ci sama réew keneen wuru fa jaar loolu yëpp objectif bi mooy sauver réew mi ñu yee askan bi lépp li nga xam ne ay tappale la ak ay nax ay caaxaan ak chamboulement bi nekk ci sénégalais yi ñu war cee jóge pour dëgmal ci lu war a man defar suñu réew loolu laa doon faggul ñu war a topp ci sama ginnaaw donc fi ma féete nag daf leen doon laal looloo tax mais bi ma demee ba xam ni wax gi ma koy wax ndax damaa bokk ci communauté bu compliqué loo leen mënti wax ci àdduna loo leen mënti indil ci àdduna loo leen mënti jariñ ci àdduna bu fekkee yaa war a defar Sénégal te waxoo ko ñoom ni ñu ko bëggee bëgguñu te buñ ko bëggul li ngay xalaat li ngay wax amatul njariñ donc ni ma ko doon waxee neexu leen ma jot ci ay appel ci monde bi jéem ci depuis ñetti at ak genn wàlla maa ngi ci ma xam ni lii bu fekkee Sénégal dong laa ci jubloo defar dama ciy jóge ba set ci wecc moo tax bi ñu ko defee ma sant ci yàlla sant ci yonante bi sant sëñ Tuba te xam ni du du xañ sénégalais yi nga xam ne jàpp nañ ni man nit ku dëggu laa wala mission laa am pour sama réew jële ko ci coono yi mu nekk ndax li ma delluwaat Touba dina leen empêcher ñu war maa continuer jàppale ci combat bi ma nekkoon kon damay xam ni ñoom it c'est détraumatisé quelque part non am ah, bu may am regretté regret wu ni ma ko daan waxee muy metti xolu ñenn ñi nga xam ne du dugg ci seen bopp parce que wax tamit lu mu dëggu dëggu dëggu bu amul quintessence bi nga xam ni dana am flexibilité ak exclusivité bi mën a dugg ci bopp askan bi ñu jariñoo ko amul njariñ donc dama ko war a defee ci beneen façon boo xam ni damay dem sax nag far ànd ak samay bokk ak sama sama tarixa li nga xam ni mooy danger nekk ci réew mi ak li koy yot ma fas yenee ñu ànd euh, xeex loolu ci xam bi nga xam ni yàlla defal na ma ko artistes aussi daan nga leen defal vidéo di ay analyse di nañ leen di financé dañu ñëw pour yàq boobu aussi yaa ngi waaj pour jubóole ngeen maa ngi maa ngi wax pour jubóole sama bopp ak bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga réew mi te mas na maa wax loo xam ne tàng na sa xol ba nga jàpp ne li ma bëgg ci réew mi du agsi ci sa biir bopp ndax na ma koy waxee moo la metti kon amul salafiste amul wahabiya amul ibadu rahman amul murid amul xaadir amul tijaan par contre. da nga utiliser benn mot muy salafia ay salafis am nañu Sénégal comme ni mu amee murit ni mu amee xaadir am laayeen am tijaan mais murit xaadir laayeen tijaan Sénégal la yem par contre salafia am na fépp ci àdduna bi am na sénégalais yoo xam ne peut-être dans la forme ñu ngi suivre idéologie salafisme parce que alxuraan ak sunna bi moom moo leen ci intéressé mais ci fon bi wu ñu li ci nekk ak li lalu ci ginnaaw sénégalais yooyu amuñu courage rey jinax wala rey sa ndax ñooñu boolewuma leen ci li may wax mais li may wax c'est une menace boo xam ne day daw jëm si ci sama réew par rapport ak benn xen bu ay nit am ci mode de fonctionnement bi confrérie yi di doxe man ma nekkoon ci di ko ñaxtu depuis plus de trois ans ñu bëgg a jàpp ne man damaa épouser ñoom seen idéologie bëgg ma dooleel bëgg ci dugal te fekk man gëwma man Sénégal bu jag Sénégal bi nga xam ne liir bi juddu tey ñu dagg cordon ombilical mu jooy nga xam ni réew mi da koy préparel ay layet layet mooy valise bu def ay couche def ay sili bu xale ay yëree xale sànke ak vantilo bu ko wër réew mi moo ko ko yoral ñu yónnee ko carte boo xam ne dootul manqué macaron ak suukar ak meew man loolu laay faggu Sénégal boo xam ne Sénégal liir bi juddu tey du jullit du xaadir du tijaan du catholique du salafiste du du wahabia nit képp la nit kooku laay fàggu réew mu ko mën a toppatoo ba man boppam moo koy faj jàngal ko jox ko mu lekk jox ko mu naan ba mu am fukki atak benn nag réew réew mi doo ko libéré ni ko nag li ma def ci yow da ngay liggéey doog ma ko fay man loolu moom mooy sama objectif. te jàpp naa ne loolu dafa am co communauté comité boo communauté boo xam ne ñoom dañ leen cee fàggoo waaye yoon bi ñu leen ci fàggoo dañ ko xaw a déraillé par ay problèmes yu ndaw ndaw problème yu ndaw ndaw yooyu nag laa toogoon di ko di ko dénoncé ay nit ñële ñoo xam ne dañoo am xen ci lii bëgg a ñëw wekku ci sama kaw moo tax ma détaché wu te pour ma détaché wu damay delluwaat ci ñi ma bokkaloon ndax su ma continuer di xeexlu day mel ni ñoom lay liggéey loolu rek moom ma waral euh, sama différence ak euh, salafis yi. ok mais boobu jéem leen a toog ngeen toog waxtaanee ko nga ñëw maam ngeen def benn débat boo xam ne ñoom ñoom pare nañ pour débat. ñan ñan ñoom salafis yi wala wahabist yi ñu ne au Sénégal di wax na ñoom ay Iba euh, parce que ñun Sénégal dañu am benn culture ñun dañ naan Ibadu Rahman rek fekk am na ay différence ci biir. dëgg la am na ay Badurahman am na Salafia am na les chiens am na ci ñoo xam ne ñoo Murit ak Tijaan ñoo bokk par exemple idéologie mais loolu yëpp dafa nekk chambal ba boo xam ni man ça ne m'intéresse guère man yooyu intéressé wu ma ay ay débat d'idées religieux ça ne m'intéresse pas sama présence du sama objectif ci réew mi déggoo li ma la non dama lay expliquer non c'est parce que day am circonstance yu ko waral man sama objectif mooy Sénégal bu mel ni Amérique ci wàllu dundin nit kuy dund kum neex nekkal athée kum neex nekkal ceddo kum neex nekkal kémique kum neex nekkal voodoo wala indo mais l'essentiel réew mi mooy àq ak yelleefu doomu adama kenn ku nekk ci ñun respecté ko ñu respecté réew mi réew mi mën a développé ñu am naataange parce que mënoo dem àjjana te lekkoo bu suur mënoo dem àjjana te naanoo ba mandi c'est-à-dire religion yi on été créées pour le droit chemin religion monothéiste yi nga xam ni mooy ñett religion yi droit chemin nit ñi dañoo ñëw ëpp ñeneen ñi ci xam ci yenn langue yi hypnotiser leen ba pare def leen de des traumatisés de la religion looloo waral chamboulement suñu réew demul et malheureusement amul benn courage politique wala courage de leader boo xam ne ñoom dañoo war a guider peuple bi vers un développement boo xam ne am nañu courage aborder ce sujet ma nag comme sama mission la moo tax duma ci daw sala yaay ndeer ma fas yéene koo jëngu ba mu ba mu jeex tàkk yee euh, ci boobu xam naa dañuy tëb fenêtre ci beneen côté Sénégal gis nañu euh, ñu yi avant loolu sax 4 avril wala le 3 avril ci ngoon président Macky def na benn discours wax ne def na dialogue woon na ñëpp pour ñu ñëw wuy si ko pour ñu waxtaanee réew mi euh, appel boobu président Macky Sall woote yow naka nga koy jàngatee. non man xam nga sama njàngat tout le temps ma ko personnaliser ndontu le président et le président de tous les sénégalais mais sama jàngat weesu na président Macky Sall ak ñi muy kujjeel man ñoom ñaar ñoom ñëpp ci cinéma la ñu nekk dañuy fooy. Euh, société civile yeeg ñëpp la wax. waaye moi y compris man jàppee naa sama bopp Sénégal jàppee naa jàppee naa bopp sénégalais te jàppee bopp leader moo tax appel bi daf ma interpellé mais dama ni ñoom li ñuy wax ki jiite réew mi ci wàllu politique ba ki gën a tuuti ci opposition bi li ñuy toog di ko ci wàllu politique lépp dañuy fowe askan bi kenn waxu ci askan bi nan la def ba am développement un développement mënul ko am sans conscience humaine am et conscience humaine munul am sans manque sans ñu nekk ci benn manque d'investissement humain nit ñi dañ leen a war a jàngal nu àdduna di doxee nan la ñuy def ba développer ñii dañuy nax ni ñi ci wàllu politique ñoom ci seen bopp di tamante dëm ñu organiser seenu état ñoom ci seen bopp jël seeni policier seeni militaires seeni gendarme teg ñun ñu def ñu ay civil ñun ñu ëpp ci askan bi ñoom ñu ne ñoom ñoo jàng ay nasaraan ñoom ñoo war a dem jàngi ay nasaraan ñëw toog ci plateau yi sol ay costume takk ay cravat yor ay vocabulaire Victor Hugo di ñu lëre di ñu dund te ñun 98 pour cent wu bi ñu jóge ci formation traditionnelle de base nga xam ne ci ay daara la ñu jógee yu mel ñu nelawal ñu ci loolu ñoom ñu ñuy guider koo ci gis muy kujjee day toog di tam ki nekk ci buur ci ci bopp bi di ko tam dëmm ànd ak groupam li muy def mooy nax ñu ñun pour ñu dajaloo téyal ko échelle moom mu yéeg bu yéegee xëcc échelle bi yóbbaale ko pour bañeen bañ keneen ku fekk ko Macky balaa muy nguuru dafa taxaw di wax lu mel ni xeme Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade balaa muy nguuru dafa taxawoon di wax lu mel ni xeme Abdou juuf Abdou Diouf Senghor ko jox cest à di ñoom ci cinéma la ñu nekk di ñu ci orienté damaa am habitude di wax ni Sénégal musuñu am leadership suñu politique yi ce sont des influenceurs ay influenceurs lañ différence su influenceur ak leadership influenceur day créer ay suiveur ñu koy topp leadership ay bañkat lay créer damay am habitude du ko wax ma ne benn armée groupe bu soldat yoo xam ne ay xar lañ bu leen gaynde jiite ku ñu dajal ci ci ci àll bi dañ lay gaje mais groupe bu soldat yoo xam ne ay gaynde lañ bu leen xar jiitee ku ñu dajal ci àll bi ak lu ñu bari bari dañ leen di gagné ñun ay xar ñooñu mës di jiite te sénégalais yi nekk ay gaynde nekk ay jàmbaar kon leader problème mu leadership problème mu dëggu la ñu am gawma ci lenn ñoom ñëpp ku ci nekk dangay ngay tam ki ci des dama boo jëlee keneen ku fëla-fële jaar ci suñu misérabilité suñu pauvreté suñu ignorance moom it di tam ka ca des dëmm ñu topp ko du ñu xool li ñuy fal parce que duñ leen xool bu ñuy laaj te dafa toll foo xam ne askan bi dañoo war a bàyyi ki fi nekk nga xam ne jeexal na day dem ñu gestu ci ñiy laaj kan moo ci nekk nit ku dëgg te ñi ma ci gis ñoom ñëpp dañuy tappale dina askan bi donc mënu ma cee déglu kenn. problème mu ba tey gis euh, euh, a def amoo euh, kilifa la di ko xam ni. bokk na ci li tabax Sénégal mais ñoom ñëpp mooy li ma wax ci cinéma bi la ñu bokk waaw su may wax ci Sidi Idi damay wax ci li ma concerné man ak sama confrérie bi nga xam ne si ni jàpp naa ne développement wu Sénégal ci suñu loxo la tege du ma ne ñun ñoo mën a defar Sénégal ñun ñëpp Sénégal yëpp ñooy defar Sénégal. mais mbir ñëpp ñi koy woote day fekk am ku ci brandir lu leer ñëpp xam nañu ni yoonu murit ah, bu dee dëggu bu dee liggéey bokk ndey ak bàyyi nangoo jël alal def ak seen coono ak seen ñaq def ko ci ñoom la fekk baax kon jàpp naa ne liy développé réew mi ñoom ci la mën a jogee bu fekkente ni orienté nañ leen positivement mu ànd ak édi euh, organisation ak méthode. ñu jël ñi xam ñu jiital leen ba pare waa Sénégal nangul leen mën nañoo defar Sénégal ci lu gaaw mais dañu nekk ci chamboulement boo xam ni politiciens yooyu ñoo ko wootee idi ñëpp xam nañu ni ci tarixa tijane la juddu yàgg ci ba bu yox sax da ngay xam ni kii mu xaddam pire la mais bi mu bëggee am dara ci politique dafa jëw sukuraam jël ñaari xasiday sëriñ bi tari ko dugg na fi génn fii ñun ñu waatu baa ñu dagg topp ko c'est-à-dire loolu mooy sama problème moo may moo may metti loolu tax man la ñoom li ñuy def cinéma la waaw façon bi ko ñëpp di defee façon bi ko ñëpp di defee ñoom ñëpp kenn munu cee defar réew mi parce que li yàq réew mi waxuñu ko te mbir boo xamul li koy yàq mënoo wax li koy defar sénégalais yi bokk nañ ci ñi dàq liggéey ci àdduna bi bokk nañ ci ñi ëpp jom bokk nañ ñi gën a bëgg seen réew mais dañoo chambalé ta tax leadership bi ñu war am mu yóbbu ñu vers un développement amuñu ko changement du commencé ci kaw ci nit ci suuf lay commencé te ki nekk ñi ci suuf pour nga wax leen ni ñu war a mën a def ba changé injecter seen énergie ak le sens de leur existence ci réew mi pour mu développer leader yi information de base boobu information de base de traditionnelle boobu ñoom amuñu ko parce que jaaruñu ci certaine misérabilité bi xaw ma ndax comprendre nga li may bëgg a expliquer moo tax ñoom ñëpp ci politique politicienne la ñu nekk te loolu sénégalais yi anoo maar dañoo sonn ci débat boobu discours boobu moo tax dañoo bëgg lu bees tàq lu bees tàq loo xam ne nit ñu dëggu ñu dëggu ñoo xam ne li ñuy wax ñu mu jëm ci côté bi ñu far wala mu jëm ci côté bi ñu bokk mu jëm ci seen i bokk wala seen tarixa wala seen diine duñ ci am ragala wax li nga xam ne moom mooy jagal dunduk doomu aadama moo tax ñoom ñëpp dañuy fowee faneen fi ngay mooy projet justice ni muy doxee au Sénégal dingat nañ ko ba ci euh, gis nañu Human Rights Watch def na benn jàngat benn rapport wax ne Sénégal dañ fay euh, salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama yow yaa ngi ci dëkk bi nga xam ne macha allah bu ñuy wax ci wàllum démocratie lañ wax te ñi ko bind tamit fi la ñu nekk. Mhm. jàngat boobu ñu def ci wàllum justice ndax euh, looy rafetlu la ak looy dëggal la wala ban commentaire ngay def ci jàngat bi nga xam ne def nañ ko. waa jàngat bu ñu def ci justice su Sénégal du ma yem ci rapport bu bu organisation des Nations Unies génne wala beneen beneen entité. damay jàngat ci expérience man bi ma am ak wër gi ma wër àdduna ak li sama xel di togg ak àdduna ni muy doxee xam nga problème bi sénégalais yi am ak opposition yi l'opposition, les politiciens d'une manière générale ak la société civile ils sont très très très hypocrites ba pare bu ñu hypocrite tamit excuse-moi du terme ils sont ignorants xam nga intellectuel ak ouverture c'est deux choses différentes et dafa am benn mag bu daan wax naan renseignement en renseignement ouverture et en renseignement Senghor moo ko daan wax dangay ngay ubbeeku ba jël valeur positive yi baax ci intégration du reste du monde ci ci réewi yi mais jël li nga xam ni moom nga moom muy sa àq ak sa yelleef ak ni ngay xalaatee ni ngay xalaatee li nga namp da cee bokk mënoo am doom ëmb ko juróom-ñeenti weer jur ko mu nekk bebe nga jàkkaarloog moom jox ko sa wen muy mu di di wax ak moom di ko jàngal kaf di ko jàngal ngay xool sa yaay mu lay xool meen mi ak meew mi nga nàmp nga màgg muy wolof ba pare ñu ne non pour ñu tekki wala pour ñu mën a nekk ci suñ biir il faut ñu déglu bi wala arab bi loolu dañ dañ ko dafa war a jeex justice Sénégal dafa am loo xam ni dëkk yu bari amuñu ko ci Afrique xam nga problème bi Sénégal yi def mooy Sénégal dafa nekk ci continent bu ñuy wax Afrique nekk ci soowu jant li ko wër yëpp di ay réewu nit ñu ñuul Sénégal nekkul ci Amérique nekkul ci Asie nekkul ci orop soo juddoo Sénégal Seydina yaroo fa magge fa jànge fa quel que soit niveau intellectuel boo am am na lamp yi takkagul ci sa biir bopp déglu baax li ma soo juddoo Sénégal yaroo fa magge fa génn Sénégal dem France rek wala nga à l'Occident wala ci réew yi développé yi ba tey am na yeneen ampoule yu takkul ci sa biir bopp ñun ñi nga xam ne am nañu malchance wala par pauvreté ñu tenté ce qu'on appelle une aventure le mot aventure mooy ku ngelaw di xëcc le vent qui nu tire ñuy dem def différents pays d'Afrique mooy continent bi Sénégal sutiye man j'ai fait 39 pays d'Afrique par expérience lu ma la wax rek en connaissance de cause lu ma xam la li xew Sénégal ci wàllu démocratie ci wàllu état de droit ak liberté d'expression amul fenn fu mu am ci Afrique noire kon nous sommes un pays démocrate la justice sénégalaise du ñe ñàkk muy soxe fii sax am na fi aux États-Unis mais ba tey c'est une justice li koy firndeel ci jamono yi ñu génn rek dafa am pàcc yu bari yu ma mën a jël lu lay justifier ni Sénégal a une justice qui fonctionne les institutions fonctionnent lu bare boo xoolee mois de mars il deux ans bi manifestation yi amee tombé mu bare ay circonstances yu am pauvreté bi engrainé wu ak crise beeg Covid bi nit ñi génn ñu yàq lu bari biir Sénégal ñi ñu yàqal seen i aral bari na ci ay ay ay chef d' entreprise yoo xam ne organ de presse la ñu yore ñu yàq seeni i matériel mais bi ñu demee ba yëkkati war a yëkkatiwaat procès bi te ñoom position bi ñu amoon noonu c' était pas favorable ak ki doon incité xale yi ñu yàq seeni i matériel mais bi ñu demee ba procès bi yëkkati ko kuwaat ñu war a delluwaat ñu njortaat ni li amoon dina amaat te ma gëm ni du amaat mais ñoom dañoo dañoo laqatu ci ginnaaw liberté d'expression bi am ci réew mi ak état de droit ak démocratie bu mat dañoo daf leen a permetre ñoom amuñu benn diplôme lu leen war a mën a couvrir jox leen kiiraange ni am nañ sañ-sañu wax mais li am ci réew mi ci état de droit moo leen jox liberté wu ñu toog ci seeni plateau di hypnotiser jeunesse bi di tenir ay propos yuy favorable ki leen waroon a inciter pour mu ñëw yàqal leen li tax ñu koy def mooy dañoo laqatu ci ginnaaw démocratie pour défendre seeni intérêt seeni investissement et c'est ce qui est tout à fait normal et pourtant ñi ñuy défendre bu ñu ko defoon ci réew yi nga xam ne moo ne ci continent bi Sénégal nekk dañu leen di prendre état ñëpp gis leen ñu rendi leen donc li ñuy wax ci Sénégal sénégalais yi ñu delloo si seen xel te ñu xootal suñuy xalaat xam ni adduna bi ñun ay nit lañu tubaab yi ni ñu def ba développer seen réew yi du caagin dañoo jóg rek liggéey de dañoo tàggat ci ñoom ak nité nite soo ko defee nite mooy moo nite mooy moo intellect intellect bagage buy nekk ci doomu aadama la nga xam ni mooy déclencher benn capacité de réflexion boo xam ne daf lay manote ba doo mën a jeng ci lu dëng wala lu jubut ci digg bi rek ngay nekk lu jub rek ci ngay mën a dox bu jëmee ci yow da koy def bu jëmul ci nga koy def loolu la ñu war a jàngal société bi loolu la ñu war a suuxat suñu société dañoo war a réformer formuler mode de fonctionnement de société sénégalaise et ñi ko war a def gisaguma ku tenir discours bu cohérent wala bu ko man boo xam ne sinti nii war naa mën a dimbali askan bi pour ñu jëm vers un développement sinon on va vers un chamboulement waaw ginnaaw ni ma ko waxee ni ma dal rek may santaat damay delluwaat Touba ndax lépp lu ma am ci àdduna lu ma am ci àdduna lu ma am ci àdduna xam nga nit lépp lu mu wax ñetti yoon rek lu spirituel la ci moom Touba ma gën lu ma mënti am ci àdduna donc Touba mënul woon a am bu Sénégal amul kon Sénégal man pour man mooy àjjana te damaa jàpp ni am naa rôle am naa part de responsabilité ci li ko war a defar parce que suñu borom mënumaa jox xel muy naaj jox ma kàllaama gu sel lu ma wax dugg ci xolu sénégalais yi ma bëgg a làqatu ci rek ñaxtu gi ma doon ñaxtu ci li ma metti ci tarixa bi ma bokk bañ indi njariñ li ma am may xamal sama tarixa nag may xamal mbokki julli di mbokki taalibe yi ak sama mbokki waa Touba bu ma leen di déglu déglu seeni discours ba tey damay tiit parce que damay xam ni yéen a ngi nelaw nelaw gi ngeen di nelaw mooy saay-saay ngi waaj mu ngi préparer di liggéey ci pet lu am solo loo xam ni objectif bi Touba la te loolu duma ko seetaan maa ngi wax dégluwoo leen ma yoonu mu murit nag dafa am nu mu baaxoo dafa nekk yoroo xam ne nangu nañu ko yeewu mais nanguwuñu ko yeete te en général dañuy frustré wu dañuy mer te bu ñu la meree dañ lay boddi te boo xoolee ñi ñu boddi ñëpp ñoo taxawal loo xam ne moo jur menace bi tegawaat ci kaw yoon wi man nag man damaa bëgg sëriñ bi te sëriñ bee ma choisiral boppam moo tax ak luñ ma boddi boddi ak lu luñ ma mere mere ak luñ ma mënti wax ñu ñàkk maa jégalit du tax ma beru te du ma créer danger par contre damaa bëgg alerter danger bi ñëw jëm ci biir dëkk bi bi ci des mooy jeunesse non maraboutique wala la jeunesse tout court de Touba ont besoin d'un leader dégg naa seen kàddu te wax ngeen ko Talla Diakhaté wax na ko te waatu ba jeunes yëpp jot naa leen téléphone nangu naa position wu leadership boobu parce que yàllaa ko def ci man te loolu yëpp ci jagleel sëriñ bi la ci jagle yi yàlla jagleel sëriñ bi ci laa bokk Sénégal ki koy décanté ki koy lijjanti ki koy arrangé nga xam ni pro programme yi may dégg leader yi di wax naan dañoo soxla programme Sénégal a besoin d'une idéologie idéologie moo mën a dépassé Sénégal ci jafe yi muy dama leen di wan gis nga sindidi bii ma yor nii sindidi bii ki ko bind ku tedd ki lim ci tagg ci man ñu baax ñi ci ñi nga xam ne ñoo fondé diine ji li mu wax ci ñoom sax man na ma bañ a bañ a bañ a bañ a amal njariñ su nekkente ni gaw ma diine trop waaye nam ko waxee ak na mu utiliser xelam bal wax ko mooy moom rek mooy ki ma yëm te noonu la ko waxee ci ay téere yoo xam ni projet de société de développement lépp a ngi ci bu ñu tegoo fi mu ñu tegoon muy alaaji Malick di Limaamu Laay di Cheikh Ibrahima Niass di bukkunte suñu mag ñu baax ñooñu bu ñu tegoo ñoom fi ñu tegoon rek Sénégal day daal di dem kanam mais yeewu leen te déglu bu baax li ma leen di wax saay saa yi ngi leen di yot wax naa ko ci côté bu ne junj naa ko ci côté bu ne man mii song nañ ma pour dooleel ma pour ma nekk pion bi ñu war a utiliser pour daaneel yoon yi wala xeex yoon yi loolu du ko def ndax ci alali sëñ samay kontaan naa trop taala jaxate jërëjëf samay xarit yi Boy Mbay sëñ Mbàkke Mbay jërëjëf Moodu ci am sama rakk li mu wax murid yi dégg nañ ko murid yëpp sénégalais yëpp maa ngi leen di balu àq te leen xamal ni mënatumaa làqatu ca la ma nekkoon rek bañ a amal njariñ réew mi kon nag damay nangu njëggal lii dama koy nangu bu diisee ci sama kawit it li koy woyofal mooy la ma war a dellusiwaat pour jëmale réew mi ci yoon bu baax Seydina kontaan a ci yow jërëjëf.